nga lu ma jaaxal. waaw dagu gaz bi dafay gaaw a yàqu trop sax. alaaji gaz yi la. ah gaz yi ñoo baaxut. wutal ma beneen gaz. Ah, a man bu beneen gaz ñëwul du ma taay sax wutal ma beneen gaz. gaz yi baaxuñu dañuy gaaw a jeex. léeg-léeg ñuy fuite di xeeñ. Ah, te gaz daa war a wóor. dinaa si dinaa si jóg. di nga ci jóg. xam nga dafa am loo ma waxoon ci sëñ bi. sëñ ban sëñ sëñ Bamba Mbàkke sëñ Tuuba nga ma si biir ba ko jinnee ne bi kabru ba lu mu tontu mooy bëgg koo jombal naan ko kabru bi kabru ba mu ni leen ay yu si jin o min jidin kajin kaa alaaji yaa dégg de amul morom duñ ko laajoon sa ak ah, mbooli wala sama maam. waaw fa la ñuy nekk di kii naan picc picc fi jinne yëpp fes mooy ndaa naan de Bamba. tey sama waa ji. cay Baro na jóg ci kaw. Samb. Hmm. xale bu réew ba lu mu def ak maam ja xam nga yow moom boo may nettali may ree rek damay kontaan tey moom damaa bëgg ñu jubóo woore koor la ñu ne. sama xarit nga woon de. Ah, yaa fi ci sumbulu embauché ko fi rek bëgg maa wér. sumbulu si koor la ñu ne waaye alaaj ñu la sumbulu de. si naka. Mm-hmm. jaalu leen fenn yéen ñaar suturaalal weer wi ci koor nga nekk waaw non non waxuma ci wet googu ah. alaaji ki yëlëb na la ci naka xam nga luy yëlëb Samba doo ma nettali li ma laaj te bàyyi sumbulu mi xam nga gone yi góor yi léegi waaw xanaa xamoo dañ naan teel sa bopp ci jigéen lañ ko lañ koy xool mm-hmm. maanaam na nga fiir ci sa bopp waaye góor a gën a war a mën a téye boppam alaaji dëgg góor a war a gën a fiir ci boppam te léegi gone yu góor mm. loolu foo lañ ko def jeu. dañ kaa jàppe lu ndaw de. pour ñoom ku ko ci dàq def. Mhm. wala nga gën cee bëri ay coro. Uh-huh. yaay guerrier bi waaw. Mhm. waa mhm. dafa ne ca dëkk ba. tëlool. jigéen ju ne mu am ak yow affaire. dégg nga lool. ba mu ca nekkee mu ni day dugg si ndakaaru daan si dooleem. maamam bi jur ndeyam xam jikkoom. ni ko déw mu ni ko naam mu ni ko nga ni looy def mu ni ko maam damay duggi ndakaaru daani doole ndi sama moroomi góor yi mhm. la ñëpp bëgg-bëgg naa ko maam ji ni ko kaay mu naa mu ni ko dafa am lu may jël ci yow ndax loolu du ma nangu nga duggee ko réyi taax ala lu mu jël si moom mu jël ngóoraam takk ko xala waa ji ni naam ji d'accord naa ànd na ci bi ma waa di dugg si ndakaaru àndul ak ngóoraam waaw comme xam nga mënu fee def dara. waaw niil na. mu liggéey fi ñaari at ak genn wàll maanaam deux ans. Mm-hmm. et demi mois. Mm-hmm. dajale dara di ñibbi dëkk ba. Mm-hmm. bi mu ñëwee ba ci buntu dëkk bi gis nit ñi bëri ca armeel ya lool. lu xew ndekete maam jaa dee. sàmm xam nga yow te maam ji dong nga xam fa mu fa mu denc xalaga. te dee na. te dee te maam ji xaritam la woon waa dëkk bi yëpp di ko jàmbat ñu ni ko sa maama dee mu ni maam mënta demee noonu waaw ndax faw ma gis maam ñu naan xam maam ji xaritam la woon may leen ko mu gis ko ndeysaan da koo bëgg a ñaanal patati jàpp kaw jàpp suuf am yaay indil jóob mu ñëw mu ni maam ji te fekk muur nañ ko ba ba ba koy waaj a denc mu xar mbalaan mi kanam ni nii loosi maam ji maanaam daal maam ji ni mu tëddee nii mu eh, jatang loos wa ba maam ji jàkkaarloog moom nii mhm. mu rappel ko dóor viip maam ji ni ko un mu ni ko sama xalaga mu ni ko ma nga ca taatu ndaa la ah wax na ah wax alaaji alaaji xanaa xamoo yéen xala alaaji loolu bu dañee ci nit dara desati ta samb ah tey jii nag alaaji bu ma la ni woon ma jox la cent milliards waaw rot ci sa ngóora waaw damay laa dénk bala ma laa toon kay saam moo tax euh, nit ku nekk war xool fu koy jox sa bopp waaw kay waaw foog gi daa bari léegi si suñu jamono ji ah, moo tax feebar yu bari waaw doo xel li nag voilà nañ bàyyi deux minutes bu gan ñëwul ñu xel gani lan asalaamaaleykum aleykum salaam ñëwati naa cey Njaay Njaay ah, di dellu di baalu àq ci koor gi baal nañ la àq Njaay di leen laaj leen waaw jaan waa nga nee di ñëw nga daw waaw ak jaan waa ngi nii da lax tudd malambaay bu nga daw ak jaan wi jaaroon na fi daaw jéeg nga daw ku gën a ragal jaan ji romb na jaan ne jaan ja romb na fi daaw mooy ñun ah ñun dama xam ne fekk wuñu dara ah. ñu wax ñu ñuy woor bu leen lekk bu leen naan julli leen lép te fekk wuñu dara lu ragal yàlla rek gëm ah Euh, am nga médaille. car macha allah. sàppala boo bëggee ñu ràññee la. waaw mais nag weeru koor rek la la diina di ñor nag. <laughs> moo ma jaaxal nag te <laughs> gisaguma la nga naafile si. maa ngi ñëw de maa ngi ñëw de. <laughs> Ah. waaw boo bëggee ñu ràññee la. waaw fu ñëpp jaar. waaw da nga fay teggi jaar ne le. dëgg la tey feneen laa jaar tey. feneen laa jaar tey boo génn tey Ndiaye. da ngeen def ni man doo nga ñëw. a ah. ah yow ñu ne woon sax yebee woo ñu noonu. koor gi kenn amul jot. xam ngeen ku ma àndal. ku àndal. ku àndal une grande dame. ndax lu ñu naan derrière chaque grand homme il a toujours une grande ministre la fi indi kii xam ngeen ku ma andi ki nga xam ne dafa bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ku ma andi ki nga xam ne dafa gëm Cheikh Sadibou Cherif xayaatu xam ngeen ku ma andi waaw ndar ndar bu mag bi hmm. la saint hmm. kooku mooy Fa Bintu Ndiaye jaww na rasulullah salaamun jammala eh. salaamun jàmmala waaye salaamun yoola salaamun bég la salaamun ndokkeel. salaam iskay waaw waaw. salaamun yokkataamatulaa yil fajri. waaw. bokkeewul ak salaamun ala ali yaasin. wala nga ni salaamun ah, ah, ah, ala nuuxin fil aalamiina wala nga dem ba suratu yaasin nga ni salaamun qawlan min rabbin rahimin wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuuna alamma aadi ilaykum ya bani aadama an laa tacbudu shaytaana innahu lakum aduwwun mubin Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad borom bariyeeru or ba ca Medina yàlla ko faale yàlla ko màggal ba demee sa suuratul Ahzab oh. man ko naan ma kaana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi xaatama nabiin kontaan nanu wa kaana allahu bi kulli shay'in alim man sama géer a nga Medina. ñu géer ñun ñëpp a nga Medina. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam Samb la. Samb Ndiaye. du xam yow oh. dama laa bëgg te yàlla tax. ndeysaan dama laa sopp te yàlla tax. li tax mu sopp la muy jëmm Seydina Muhammad jooju nga def ci sa xol bi waaye nag. Eh. tey indi nañu ko nu sut. Ah. indi nan fi kunu mën ah. du sam njàng du samam njàng mm. du njàngum allah di ñu njàngum baro mm. sumbul waxum noppi mm. li mu fi tudd mënu leen koo teg alaaji yaa nga baax borom kër gaa ngi nii wax nga fi lu sut suñuy noppi de ça va bien accéléré ak jàmm toogal ne moom àggal ah sa moom kër sa nga de Seydina Mohamed ku ko bëgg day service dëgg la man de maa ngi mel ni ku ñu tuur glace ah tey li nga yëg-yëg tey ma ko laaj dara kii xanaa ni jàkk di ko xool <laughs> tey du ma la laaj dara sa xarit la voilà jo sama xarit dama ko sopp rek da ngaa bëgg koo dugal rek sama <laughs> faatu ah, soxna si ni nga nuyoo de kontaan nañ alhamdulilah xanaa di bég ci yow daan la gis ci télé bi tey yow ndax fii ba Europe defe naa ne gars yi ñu ngi lay gis di nga naan ataaya man ko des dinaa naan kañ ah, di waxate rek ne Ndiaye ah. koor gi man da ma maa waaw ndax defoon naa da ngay aj yi ba koor gi paas aj jën yi ndaka yow koor nga mën a sax bëri seem te kii ma andi waaw duñ naan tunga ne du teew mhm. ñuy nataal dëgg la uh-huh. damaa bëgg ci làmmiñu boppam mhm. mu wax ñu mooy kan kan mooy soxna Fatou waaw waaw ana sumbulu euh, sumbulu sumbulu sempere ngalam moom yu baax du ko fekke mukk yu baax yi du ko ah, ah. fi la baaxee nag maa la ko wax ah woy tey de yéen laa andi tey. une grande dame. loolu xam nga ko. maa ngi ci jàmm waaw gis naa ko télé bi muy tàgg Seydina Mohamed di def. sallallahu alayhi wa sallam. ah maa la ko wax. ma sopp ko lool. yat wi dal na mbaam mi fa ko daan dal. waaw gis na waaw waaw parce que yow a ah, wax ci yow jot na. Ah. ndax ba nga ñëwee ci kër gi ba léegi. Hmm. ñaawuloo ci de. dëgg yaa ngi togg muy neex. Hmm. ñuy lekk di naan. Hmm. nga ànd nag. ak waa face to face. waaw muy Bekay. defal ak waa Jadida. def lépp maa ngi mottali affaire yi. Jadida maa ngi ñëw. teral la rek loolu lu muy tekk jazakallah. Ah? waaw waaw. donc Cheikh. Ah. waaw wax euh, lu am solo. Mhm. mooy tey jii dañuy profité si occasion bi. da ngeen lekk soog a naan wala da ngeen naan soog lekk. lu ñëw loolu am lekk de. li nga wax yëpp da yàqul lekk. kii dama koo bëgg te yàlla. ndeysaan. maa ko wax. waaw kan mooy Soxna Fatou Bintou. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi leen di nuyu bu baax. te di leen ziyaara. fay nañ la soxna di leen ndokkeel ci weeru mag bii. di weeru shahru Ramadan. Mm. nga xam ne weeru yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. si la ñu wàcce woon alquran al karim. Mm-hmm. Adja Fabinte bii nag toog si kanam. Mm-hmm. muy Adja Fabinte Ndiaye di bintu Taha di bint atul Mokhtar. doomu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ndax bu ne Fa bintu. sa xel dem ca Fatimatu bintu ya Rasulullah. waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bañ ko ne Zeynabu ndax sa doom la dafa ni sama doom la. ñu ne ko Roqaye mu ni sama doom. waaw Umu Kalzum mu ni sama doom. waaye biñ ko ne sama turandoo dafa ni bint atul Mokhtar. mu kooku mooy bit atul Muxtaar mooy dogit la wu jóge ci man. ndeysaan kookoy ma ni ban ka laajee kuy sama turandoo. dafa ni kii dogit la wu jóge ci man. dog wu ci moom. dogit dogit waaw res dogit. moom si moom si moom la génne. ndeysaan boo yamalewu ko ak ni mu wootee ñeneen ñi. waaw ndax looloo kooku nag laa tuddee sama. waaw xam ne nee nañu coïncidence day faral dance waaw mm, xam naa loolu la sama papa Fatimata Bintu Rasoul la ma tudde tudde ma yaayam ah, direct lañ la ko tudde waaw direct vraiment nag direct mm-hmm. donc nag mm-hmm. euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ñun ndar ndar yi xam naa ñëpp ko bëgg waaye nee naa bu ñëwoon ndar lay wàcc Ah, Seydina Mohamed bu ñëwaatoon ndar lay ñëw de ndar lay wàcc loolu daal yaa ko signé yow loolu du ko wàcc jëmale sa kanam la loolu nga def ne du wàcc Thiès non non Thiès dafa tàng <laughs> waaw ah, waaw géej ga ndar fa la maxrajal baxra yi xalaatal ni nit ma sa dem ay jàng bay na huma barzaqun laa yabgiyaan fa lay wàcc alaaji attention de ah. nit ñu baax ñu bëri jaar nañ ndar kon li nga wax boo ko waxee dama lay dëgg waaw waaw ay kàngaam na dëgg la Cheikh na jaar na fi nit ku baax foo nga jaar na kooku yàlla ñoo ko may boo tukkee bay dugg buntu ndar ba bël ba yëngatu peex moom foofu rek la am ndeysaan ndar ndar waaw ndar ndar kon sant yàlla ndar laa dëkk tudd hmm. Fat Bintu Ndiaye ba saint ñëw si seen ngoonal bi si leen seen ma nag sagal ma ndax dama koo fekk mhm. ci lu rëy mhm. mu jàpp maanaam mu nekk ci liggéeyam nga xam ni ndax moom moom lay xëyee moom lay gontoo di ko ndekkee di ko añee di ko reere mu Seydina Muhammad ci laa ko fekk yàqul temps jël sama temps ma ni toog xaar ko ba mu pare ca mhm. ma ne ko ngona ngona la nga lay woo mhm. dañoo bëgg nga ñëw ñu bokk ndey ak baay naan ataaya lekk mhm. waxtaan ci Seydina Muhammad waaw man mu ñëw mu bàyyi ko waaw mu ñëw Seydina Muhammad ci boppam jar na uh, moo moo raw lekk ba suur moo raw naan ba mandi fees na biir ma lay laaj ndax yëfi jeune fii maanaam yëfi jànku soli robb soli pantalon nga baal ma ci teggi wax ji li xale jigéen yi def di paccalak yooyu daal yooyu ndax yàlla euh, defoon na nga mucc ci wala aw nga ci soog a soog a soog a def nii aw ci bii yoon saa neex nag li nga ma laaj moom di li laaj li gars yi naan dana ma neex moom neex na ma mm-hmm. kon capp maa sant yàlla paccal moom sant naa yàlla ba fekkewu ma jamono paccal mm-hmm. moom paccal moom maa ngi siy sant sama borom bu baax a baax mm-hmm. waaye nag comme toute une jeune fille mm-hmm. ma daan jàngi ecole di dem lycée Charles de Gaulle daan naa dóor sama jiin di dóor samay jiin di jaar si pont Faidherbe bi di wàcc ndax lycée Charles de Gaulle laa jàngi ba amee fa sama baccalauréat donc daan naa waaw wallaay jàng naa ba am bag te nag sa bag yu jëkk ya am uh-huh. j'ai eu mon bac avec les deux parties première partie ak deuxième partie. Hmm. ah oui ah, donc donc daan naa sol ay jean. Hmm. Hmm. di sol samay robe di jàngi. vraiment. mais nag tey bi nga xamee ne nag dañu séddoo Taha Mohamed. boo ma xoolee xam ne Taha laa. dugg. waaw loolu moom à bas la ma dugg saa neex. Seydina Muhammad boo koy boo koy natt ñaata at nga amoon ci la ci la la leeru Seydina Muhammad dugg ba def la nii sallallahu alayhi wa sallam ndax boobu amaguma BFEM. waaw comme on dit xaleel lu mu jàpp da koy capté. Mhm. damaa dëkk benn famille boo xamee ni loolu mooy seen métier. muy kër Adja Nafsa Gueye maa ngi leen di ziyaare au passage. Mhm. góor gu mag dencoon ko di Cheikh Ibnu Arabi lii dencoon ko sunu kër yi ñoo takk. maam Nafsa Gueye créé benn daayira bu ñu wax naj mu saaxi bu naj mu saaxi bu surtout yonent yi la bokk waaw donc à basage ma retenir change yàlla boole ma ci loolu nag kon école boobu laa génne hmm. bi may tagg yonent boobu aw ma befem donc à basage âge laa ko commencé vraiment yàlla daal moom ma ci xiirtal kon man si je comprends bien hmm. mhm. euh, bàyyi sa jàng hmm. parce que am nga bac plus nga bàyyi études pour tagg Seydina Rasulullah loolu la wala du loolu loolu la xaat euh, Cheikh hmm. yow damaa kontaan si yow ndax man sama rakk bi topp si man Cheikh Ndiaye la tudd ah, loolu la li ma la laaj loolu la da nga bàyyi njàng mi waaw damaa ndax Rasulullah dama ko bàyyi nag franchement parce que ba ñëpp di jàng samay waajur ñu jàngal nañu macha allah boo ñëwee suñu kër macha allah jàng nañu école jàng alquran hmm. suñu kër ñëpp a wàcc waaye yàlla dafa ma man sédd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc nga alquran xatta zaat mooy jeexal alquran jeexal nga alquran jàng 114 saar mhm. te ku ne xam na ne ndar balaa ngay jàng école daara ja lan la yóbbu fajar ngay dem jàngi ba mhm. ñëw dem jàngi école wàccaat demaat sa daara ja mhm. donc yàlla dimbale ma sa alaaji Saneex yàlla nga ziyaar Seydina Muhammad alaaji bi moom dem naa ndax sama turandoo demoon na waaw donc mun mu far nekk daal suñu suñu vocation. waa ma teg fa yëpp nag jël diplôme yi ranger que dans les casiers. Mhm. parce que diplôme bu nekk dana daa si dem liggéey ba retraite. Mhm. mais yonent bi kenn du si jël retraite sëñ Cheikh. mukk waaw donc daal. dégg nga loolu xam nga lii dégg naa ko. Mhm. lii dama ko sopp ndax dafa am. gan gu nu fi amoon. ma ne ko nit liggéeyul liggéey bu gën a noobul seen liggéey bii. nit liggéeyul liggéey bu gën a wóor. gën a am fondement seen liggéey bi tagg Seydina Mohamed. tagg Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. Ah, Cheikh Ndiaye mi bis dafa ni ma. ustaas yi nga xam ne dañuy jàngale Cheikh Ndiaye sax waxuma ko ku ñuy wax màngaan moo ma ko wax. Abdou màngaan nekk ca Arabie Saoudite maa ngi koy nuyu. di jaabante diggante Maroc ak Arabie Saoudite ak yooyu. Mhm. opérateur économique bu mag màngaan ni ma. ñun li ñuy liggéey. alxuraan la. Mhm. alxuraan dara gënu koo sell dara gënu koo màgg lu tax may gis yenn ustaas yi am lu ngande noonu am lu rëye noonu di col ko yenn colko yi wala bu ñuy liggéey ci société balaa ñu leen a fay bu salaire manqué ñoom la ñuy mujjee fay ustaas ustaas bu ciy liggéey ci société salaire ya tag dañ naan ustaas di mën ngeen ko àndataan naa mu école yu ñu ne ustaase la ñuy mujjee fay. yoon seetal li ma la wax rek. dëgg la dëgg ma ni ko. Mhm. kii li ma def bëgg naa ko. nit boo koy tagg ak di ko kañ. Mhm. ak di ko bàkk xam fa koy jaar. Mhm. xam la mu wax. xam la mu tere. xam la mu la la fa nga koy jàpp. dëgg la. kuy tagg Seydina Muhammad jàngal alxuraan. ndeysaan dëgg la alaaji man loolu laa gëm moo tax mani la. Eh, yow alaaji waaw. ragal péete. day xañe wërsëg. waaw nga jàng. waaw ba toll yenn niveau yi. waaw ne man damaa choisir tagg rasulullah. waaw kon féetewu nga ci moom te féetewu nga ci ku jara féetoon na. waaw njëriñ li njëriñ li. ndax gis nga ko ci. choisir bi nga choix bi nga jël. Mhm. ba choisir Seydina Muhammad. yan yan la la andi. wallaay Cheikh loolu aussi dama si kontaan si question yi ngeen may posé yëpp. par exemple sa neex ni mu defee ay journaliste nag dañuy waxtaan rek. mais kon de hmm. comme on dit. bu ñu mere waral ay gaaf. dañuy waxtaan rek. parce que Alaaji sa neex dafa wax léegi. ni yéen li ngeen di def moo gën mooy mooy nopp métier bi gën a nopp. yele ca gannaaw. sama gis au passage maa ngi koy nuyu. Hmm, grand yu ndax sa këram gee di TFM daf ñu fa invité woon ñun takkatu yonent yëpp sallallahu alayhi wa sallam. te nag ku ñu ñaanul soxorul xam ni c'est un grand monsieur. macha hmm. ñoo ngi koy ziyaare di ko nuyu ñu mas a woo sa këram gee taxaw jël wax loolu. lii nga wax nii. les mêmes termes la utiliser woon. daf seetaanu ma. wallaahi alazim. Mhm. mu ni yéen ki ngeen di way. ñun moo gën ñun ñu nuy way yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ngeen séddoo. yéen yéen a gën ñëpp. Mhm. nii la ko waxee. mu ni kon lépp lu ma mën danaa leen jàppale. Mhm. ba fu waay teg tànkam di ngeen fa teg seen tànk. ndax nag saa neex li tax loolu mu noobul. sallallahu alayhi wa sallam dafa ni ku ma tagg lu tool na gën na genn wàllu bayit man maa la amee ku ma tagg lu tool na genn wàllu bayit man maa la warlul aljana ëllëg ndeysaan te fii dañ fi jaar rek mhm. fee la ñu jëm yàlla na yéex te ku dem bëgg nga ñu teeral la jox sa cachet nga xam foofu féete mhm. kon sallallahu alayhi wa loolu la wax loolu rek jar na nit doog di ko way ba dee mhm. cheikh nag li nga maa laaj sunu borom dafa ni bu ma la mayee boo ma santee ma doole la wa in shakartum la azidannakum mm-hmm. donc si mm-hmm. donc dañu séeréer bi ba ko defee. waaw dafa accidenté séeréer bi. ah <laughs> ñu ne ko santal yàlla mu ne kon daf may dolli. <laughs> doy na waar <laughs> donc soo ma laajee yan xéewal lañ si am. mooy dañ ciy sant bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. ndax yàlla nag teral na mi si. man de pour man xéewal bi ci gën a noble mooy ma am facilité dem ziyaari Seydil Wujud Mouhamed Ibni Abdillahi dem naa ba sëpp ko. Saneex pour man dara gënatul rëy loolu. dëgg la. tey si xéewal yi suñu invitation ngonal bi ci la bokk. Ah, waaw ngay ah lii xéewal la bu rëy la ci weeru shahru ramadan bi. ci xéewal yi aussi si laay dajeeg Ndiaga Ndour macha allah. Ah, booy Ndiaga booy ah oui franchement. maa dajeeg moom sama kër papa Almadi. Ah, booy waaw moom yàlla na ko yàlla eggaleel yoonam ci barke Seydina Muhammad. nga dajeeg waa ndaxte dañu ne man lam yaskuru naas laa yashkuru laa ku santul nit yow yàlla nee na moom doo ko sant man nag maa ngi koy remercier bu baax a baax mhm. parce que depuis qu'il m'a vu dafa ne ma yow man maay taxaw pour jàppale la mhm. ba ci invitation bi bi ma fa Cheikh yóbboo dafa ni see accepté mhm. woo ma si buub si Weekend Star tey studio laa yendu macha allah moo ma jël dugal ma studio enregistré ma huit morso ni ma man sama bopp maa lay defal sa promotion Sanex loolu ndawul de. Ah, defalu la ko de. ah dofut dina jàpp ko. loolu daal la ma defal ci ko de. te ni ma fas naa la jàppale incha allahu taala woo Faamaram. waaw ku ñuy wax Faamaram. moom tam defe naa Faamara Faamara Faamara. Ah, ah, sa kër ga la bokk waa. ak ñoom lëz. <laughs> wow ni ko jàppale leen soxna si te yàlla tax. ndeysaan ñu dugal te nag daar daar la ko dama leen gis tey tey affaire bi macha allah dafa tegaloo ni boobu ba tey tooguma ma. ma leen xamee daal ba tey tooguma ma macha allah. ndax yow amoon nga ñëw ñëw ñëw seet suñu suñu biir kër gi. waaw vraiment amoon naa ko mais mënu ma ko woon imaginer que ni dina yombi nii. Ah. loolu moom parce que nag seen kër gi nag. macha allah ay de grands monsieur ñoo fi jaar gis naa fi seetaan naa fi ku nekk. fa tabaarakalla kon buñ fi ñëwee. dañ fi sant suñu borom te xam ne suñu yokkute la. am nga am naa groupe bu baax a baax groupe sopp Muxtaar Najmu Saaxibu laa ko tuddee. da ngeen am ay instrument ay clavier ak yooyu. am naa sama ay tabala nag laa am asaane amaguma clavier amaguma kora. da ngaa bëgg clavier gis nga kii li muy def ni bëgg naa piano. Mm. waaw bëgg naa kora. tama moom bokk si. <laughs> am nga sama. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xamee ne da koy taaral boo koy way rek. bëgg nga loolu dafa yéen daal yéenay xool lépp lu koy Barthélémy bëgg nga ko kañ nga mës a way Seydina Mohamed ba yëg ko ba xam ne way nga ko ba ba première fois bi mu lay njëkk a daal loolu nag dina ma xaw a jafe ah. waaw man nag sama xaal laa àndal par exemple bi ma ajee màkk man su ma koy way toujours damay nekk en trance jox sama kaas boobu parce que affaire bi damay affaire bi daf may ah dafa am may dugg parce que man seetlu naa bi nga dugg see léegi waaw yaa ngi way mais yaa ngi mel ni yaa ngi lox waaw loolu yaa ngi mel ni dafa am lu la solo seetlu naa ko ci moom ndax di nga toog ni la Cheikh wax ni am nga groupe mm, nit defal contrat ca bitim réew mm-hmm. wax ak yow fii ci téléphone mm. nga war a dem ambassade parce que l'islam dajal na àdduna mm-hmm. dëgg la mm. te ku ne bëgg na ñu mel ni yow mii fekk si leen ca réewi tubaab ya ak fu mu mën a nekk ci àdduna mm-hmm. traversé sunu continent bi yépp wutali yeneen continent mm. nga defal ngeen defal fa yu mel nii ko ne bëgg na ko Seydina Mouhamad ay mbiram saaw na baawaan a tournée international am nga contrat ak groupe bi def nga tournée international ak groupe bi yow nag Saneex dafa mel ne dangaa laal sama sama góom sa groupe waaw parce que man sama groupe soppe Mokhtar bëgguma lu dul génne leen man nag yàlla baaxe na ma invité nan ma benn yoon Italie waaw ba amoo problème visa ba Bergamo loolu nag moo tax man leen da ngeen laal sama play ñëwal da donc bi yàlla dogalee. waaw Alaaji Cheikh Maxet Diop maa ngi koy au passage ak soxna Aida Diop. ñoo amee daayira yi nekk Italie yëpp. sa Bergamo. sa Bergamo. waaw. donc man dañ ma invité bëggoon ma ñëw bokk fa tagg fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais malheureusement li may wax nii ni ma ñoree Cheikh moo ma dàqal sax laax bi donc biñ ma invité pour ma ñëw jàngal leen man kese maa amoon visa pour dem Sanex ma am nag tous les problèmes du monde. parce que foofu yëpp lañu woowoon waaw mais man kese ma am ndax tam waykat da ngay am sa ay awkat am sa ay tëggkat am sa ay tàccukat. Mm-hmm. am sa nag sa ay yaabakat yoo xamee ni ñun ndàndar noonu la ñuy def comme naar yi loolu mooy tax sa talent mën a génn waaw mais keroog ba ma fa demee waaw avant may am visa noonu laa sonnee waaw lu tax ñu macha allah euh, lettre d'invitation lañ ma envoyé woon. Ah, mais ma dem pour groupe bi man kese maa dem. yow waaw te ba ma demee aussi dama jéem di góorgóorlu ba taxalee. Mm-hmm. sentir nga ne am na lu ma. ku nekk waa Suède di ma woo waa Paris di ma woo mais mënu ma woon def. tournée xam nga la mooy bi Cheikh du def tournée xam nga la mooy problème mm. waaw. ñoom ñu yor mbiru visa yi. Mm. du ma ni ñoom ñëpp ndax ma mais ñi ci ëpp xamuñu kuy Seydina Mohamed. sallallahu waaw lool de am na. li nga xam mooy woykat yi mel ni ñoom Youssou Ndour yi may tudd théâtre kat yi mel ni ñenn ñi fecc kat ñi te ñooñu dañ lay naan engagé nañu lu mu tudd Fat Bintou Ndiaye Fat dinañ ko fay day def prestation ci salle nangam prestation bi dinañ ko ci fay nangami euro ci otel nangam lay dal bis nangam lay ñibbisi tubaab loolu laxam mhm. bu fekkee nag dañ ko invité ci lettre kese tubaab yi dañ naan ko ana sa contrat. Mhm. lu tax groupe bi di dem yéenay ñan bay dugg avion di dem. Mhm. dañuy yi ji ana contrat bi. ci ban hôtel ngeen di dal est que loolu yëpp amoon na. non non non amul woon franchement parce que ñoom dañuy invité am bii saaba day jafe kon. yéene ñoo jël en charge. Oh. waaye nag Alaaji Saneex defe naa bu ma jógee ngoonal fii man di gëm naa ni incha allah ça va changer lépp di réglé uh-huh. ndaxte xam nga lu tax ma gëm ni uh-huh. waaw gëm naa ko nag xam nga waxoon naa la sànq ni la coïncidence dafay faral danse mm-hmm. dëgg la plus tard qu'hier maa nga woon BSDA mm-hmm. yaa ngi waaw macha allah li ma dawal yëpp dama ko protégé boo xoolee sama CD hologramme baa nga ci. c'est ëpp na deux ans mosuma jaar sax bees mosuma dem. yow dinaa la may seede waaw foofu laa yaa ngi studio waaw donc ex mën nañ am exclusivité bi nga defal ñu fi même bu dee benn. waaw bi nga xamante ne daal morceau fétiche bi. waaw ñu xam ne kat Sénégal xam ne lii yaa ngi leen koy waajal génneel. man damaa bëggoon man damaa bëggoon loolu. Hmm. bu buy waaj a tàggoo. dama doon wax Sanex bàyyiwuma ma eggale. waaw kay waaw ñëwal waa ñëwal ci loolu. parce que dama doon euh, remercier comme ni ma remercier Ndiaga Ndour li tax ma la coïncidence dafa faral danse. yëpp nag si ñetti fan yi yéen seen télévision bi amee ma di ma defal promotion si laa ko amee. Mouhamed El Mounirou bi nekk de waaw moo it daf maa fekk Louga may tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy nuyu au passage di ko ziyaare. ndax surtout Sidi Hadj Malick la. bi ma woyee ba pare mu laaj ma lii ngeen ma laaj. waaw mu ne ma naa ko fekk bureau waaw pour teg ma ci yoon bi. waaw macha allah démb fa laa yendu. ba fa tabaarakallaahu macha allah mook ay secrétaire am ñoom xadi ñoom tabara ñu taxaw ma. ba macha allah. carte ba yàlla def na sa jàppandal. ma daje faak tam benn rakk Kumba Gawlo moom it tudd Fatou Bintou Rasoul comme man mu ma yow suba maa ngi lay nga naan da ngay enregistré TFM yow heure bi da nga waroon dem tëdd nga noppalu nga am ku lay doxal sa ay dox mhm. ma ne que tout début est difficile te ñun takkatu yonent yi mhm. ah xam naa melu ñu fa comme ñeneen ñi fa laata sa sa sa jibi dramé ndeysaan mun ma sama jabar noonu la la soppe te manin noonu laa la soppe ne ma may naa la mubbu cuub si li ngay fas yéene liggéey kon moom tam maa ngi koy saluer au waaw ñun nag lu rafet rek la ñuy sol nag Sané rafet rek la ñuy sol donc loolu bi mu amee tey ma ñëwaat tam seen plateau bi Ndiaga Ndour yóbbu ma fee mu mel na affaire bi mi ngi ci yoon waaw vraiment mi ngi ci yoon bi tey naa studio bu garaaw bu danse macha allah waaw loolu si ginnaaw daal ginnaaw Cheikh na dinañu ko si kanam waaw damaa bëgg rek mu ah, ko mayee dina ko mayee déedéet def ni wax mais damaa bëgg rek ñoom euh, alaaji ñu ñii ñi ñuy demee ñu ñuy may ñuy tukki di toj réew mële xam nga réew mee ku ko war a toj mm-hmm. ñii Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lool ñoo noonu la ñu war a mayee jàngikat yi taggkatu rasulullahi ñuy tukki ñi ne ne ni di tukkee waaye yéen laax bi neex na de décollé wu leen atterri wu ah. lu tax ah, amuñu si oto yi mm. bu ñuy dem léegi laa fayal sama groupe bi oto ñu ñibbi saa neex ah mais ndax affaire yi ubbeeku ñu koy yor jox ñu ko ñu am ci kàttan. Seydina Mohamed kookoo dara dégg. Seydina Mohamed. lii de attan na ko. dana ko jël. Seydil Wujud. Mohamed Ibnu Abdillahi. moom Seydina Mohamed. daan ka woowe Mohamedun. dénk li nga soxla yëpp yonent bi tudd na Ahmadun waaye tudd na Qayimun Seydina Mohamed tudd na Taaha man de Taaha moo ma ci gënal tudd na Taaha mhm. xoolal ma Taaha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى <laughs> إلى تذكرة لمن يخشى yéen ci yàlla Muhammad dafa taaru ba yàlla wàcceel ko suuratu Yaasin tudd naa Yaasin ku fi am daraja yonent bi moo la ko yakkal yonent bi tudd na rafiatul darajati Seydina Muhammad tudd na Saadullahi yonent bi tudd na Saadul Xalqi tudd na Aynun Naim Mm. yonent bi tudd na aynul izzi mm. Seydina Muhammad tudd na aynul izzi tudd na dalilul xayraat yonent yàlla Muhammad tudd na maxsuusun bil izzi yonent bi tudd na maxsuusun bi sharafi mm. tudd na rasulu rahmati ah, yonent yàlla Muhammad tudd na rasulu tawbati tudd na siraatullahi tudna siraatal mustaqima seydina Muhammad moo yor caabi aljana maa la ko wax tudna miftaax miftaaxul jannati yonent bi tudna miftaaxul rahmati waaye tudna Mustafa yéen màggal leen Mustafa yonent yàlla Muhammad mooy Mustafa tudna Mustaba seydina Muhammad tudna Muxtaar yonent bi mooy lelu muxtaar loola waral xulaamu rasul naan ko muxtaaru muxtaarooy xiiratul axyaari muxtaar xalamal ma loolu waay mooy xiiratul axyaari muxtaarooy abarrul abraari muxtaar Moxtaaro oh. ku si fetteeku yàlla nga gisee ak Moxtaar. Aja Alaaji Saneex. Ah. waaw waaw kooku moo yonent bi dénk naa ko lépp boo génnee ci kër gi. alaaj damaa bëgg ngeen laamu boo génnee ci kër gi. Eh. loo bëgg di ko am. lamb leen poche yi. akramal xalq. ana poche ana poche. lamb leen poche alaaj ana poche. lamb leen poche. non alaaj li nga wax alaaji transporté ma. ah waaw. alaaji transporté waale ma. seex bul ñàkk jom. yóbbaale ma wax. seex bul ñàkk jom. Ah, yóbbaale ma allah lii baax na invitation bi moom Cheikh àdduna ngi lay jeew de. xam nga tax ma kontaan Seydina Mouhamad da lañu wax. man taaxaa. alaaji kaamil bi bu ma ko ubbee ba gis. taaxaa yaa tuuti waaw ah, tur bi dafa neex. waaw taaxaa dafa neex. damay wax naan su ma amoon doom bu góor. moom laay jël tudde kan. dàpp leen loolu taaxaa doom bu góor. ndeysaan amuma kan. incha allah di nga ko am di nga ko am. Sane bu ma laaj yooyu. waaw dëgg la borom kër. lépp baax na di nga am. <laughs> wuy ma am nga lépp. te nga bañ a ndax am nga ndax am naa taaxaa. am nga lépp. sama doom sama rakk bi nekk Almadi doomam taaxaa Mouhamed. Mm. man la ko séddee. sama rakk ba nga xam ne actuellement ma nga niis. jur na ko récemment mu ne ma tànnal tur. ma def si Seydina Mouhamed Taaha Ndiaye. man nag damay ragal gis nga boo génnee fii. ah ba lii àdduna gis ko. Ah. di nga di ay kii de. ay prétendant ay ay kulit yekk xam ba ca. bu boobaa nag nag ma ne am naa kulit yekk. ndax sa xarit laa. ah ku lay gunge ci voyage yi def naa leen sama xarit nag wax dëgg sama xarit non yow yow xamoon yow yow xaaral di nga xam ne sunu xarit la sax. ay nit ñu baax ngeen depuis ma dugg seen télévision bi ñu baax rek laay gis. franchement sa fait 4 jours maa ngi nekk ak mais ñu baax ñu sympa vraiment laa fi gis. seen kër gi. xam nga dañoo dëkkoog booy tey li ngay tàggee Seydina Mouhamad. seen kër gee ma demoon laa laa bëgg li ngay tàggee Seydina Mouhamad. sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ndax di nga ko tàggee. ndax yow dina lay dal ngay ngay ngay way noonu Cheikh Ahmadou Bamba maam El Hadj Mali bu Kunta loolu di nga koy def wala yow ci ci ci ci ci damay dëgg li nga wax da ngay dëgg damay dëgg li nga wax parce que man ci sa way waaw dama ciy sentir tuuti euh, naar naar kan moo sa sëriñ. man nag Cheikh Cheikh Abdoul Qadir Jilani. xayaartu alaaji gis nga kooku bu ñu tuddee turam. ci dëgg. Mhm. mu nekk sa xol nga ne xayaartu. Mhm. sa wet góos gi mhm. day sedd guy dëgg la. Hmm. sàmm nag plafonné nga. Hmm. tey moom bett nga ma kooku du moroom du maas de. dëgg la sàmm am nga wasila gu mag. loo wax ci kooku. wallaay dëgg la. Uh-huh. fi mu nekk sax dama am transe. parce que da nga xaw a dévier parce que dafa ne ma est-ce que dana la arrivé souvent ngay woy Cheikhul Khadim wala mm-hmm. ngay woy lii ak lii ak lii. Mm-hmm. sama album bii ma def dama dama am si ku ma roy ku ñuy wax Cheikh Mansour Diouf nekk fii si Yoff mm-hmm. nga xam ni sama soppe la dafa ma bëgg te taalibi sëñ Fallou Soyibou la. bëgg ma lu mu def woo ma si. dafay woy dafa am kuréel bu rëy rëy rëy ah, am ñaari doom macha allah ñoom ñëpp mu tudd leen yonent bi ndax bëgg yonent bi. daf may wax yow yonent bi moo ma la indi. maa ngi koy bu baax ak waa këram ak waa kuréelam yëpp Cheikh Mansour Diouf mm-hmm. ak soppi Cheikh Mansour yi moom daf may invité lu muy def dama ciy woo lu mu mën a yëngal rek maa nga ca biir mm-hmm. ñoom Adja Boli Diaw waa këram yëpp su ma limee damay juum donc si biir foofu ma mm-hmm. inspiré wu fa ma ni dialogue tarixa moom lay def bu weeru koor wi amee dana woo tijaan yi dana woo xaadir yi ñëpp lay woo man nag lay woo maa indi tabalay chaque année ba démb la ma woo ma wax affaire bi la 27 la incha allah man tam ma inspiré wu loolu te su ma génnee saaneex ci mbedd mi ñiy daw di daanu sama kaw nga xam ne yonent bi bokk si eh! bu doon man kese ah. sama jëmm ji kenn du ma jooyal mais fu ma dem ni ñaa ngi may may seen alal mhm. nit ñaa ngi jooy di daanu sama kaw mhm. te ku jooy ma jooy ndax yonent bi donc ma ni ñi ma bëgg léegi dootul affaire u tarixa mhm. affaire u yonent bi la mooy affaire bi sallallahu ma toogee Europe murid yi ñëpp dan may woo murid di sax ñoo may gën a woo mhm. soxna si lii soxna si laa mhm. xaadir di ma woo taalibi Cheikh Tidiane di ma woo waa kër maam Baye Niass di ma woo mhm. par exemple ma la waxee man samay waajur ay muqaddamu si da agi maag leen sama yoonu màkka yëpp waa taalibi kër Cheikh Tidiane ñoo ma yóbbu màkka kon man ni damay delloo njukkal ñëpp waa kër maam Baye Niass waa kër maa kër waa kër maam Baye Niass rek mooy Cheikh de Tijane. ma jël na kaset bi wayee ko noonu tarixa yëpp wayal naa ah, tarixa yëpp pour ku ne gis si sa bopp. kaset bi riche waaw macha allah j'ai fait sept morceaux yoo xamee ne yonenti bee moom quatre yi. wala trois yi titres ma jël ka nag taskasi. comme titres yi bu njëkk bi. way naa Ibnu Zabir. maanaam. mooy doomu kanu baroon rendi ba tey sa yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Ah, uh-huh. ibnu Zabixe Abdalaay ak Aminatu. waaw boo ko xamulee moo di Yaasin xayru Sanaya. ba nga jaar. waaw beneen bi ma woy burdu. burdu burdu bi waaw bi ñuy def ci waawan nga xamee ne Mouhamadul Bousayri moo ko woy Seydina Mouhamad. Mm-hmm. di ka ka way ba am trans am xaal. ni fa mablawul ilmu fiihi annahu basharun mm. xamatul lu muy wax. ñi naan dafa xam dafa daanu sang bi jog solal ko manto mm. burdu mooy manto mm. yonenti bee eggale phrase ba mu ne ko wa an na wo nga ne burdu mooy kundi a xam la burdu mooy manto mm-hmm. ma ma way ko nag mm-hmm. pour faire plaisir à mes parents delloo leen ci njukkal moo tax foofu taalibi cheikh bi sax laa ko wax di ci bégal ña nga di si bégal tam ki ma jëkk wan ma tiim yonenti bi mm-hmm. muy fal sàmba ndar xujja seek Adja Ndeye Waré madame Cissé di taalibi sëñ Moussa Fassi góor gi su roq bi mooy sëriñam hmm. donc man dinaa naa loolu dajee ka taalibe Cheikh yëpp ak buur dëgg beneen bi ma way lu doy waar loolooy clip bi jëkk génn incha allah demain dina nekk dans toutes les télévisions boobu man kurri ma takkri man wakkara ma takkri man saaneex laaj ma luy kurri ma moo tax man la loo ci way loola la ma ca way mooy valeur julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam valeur bi mu am la valeur très hmm. que xam nga yàlla allah subhanahu wa taala sunu borom dafa ni inna allaha hmm. wa malaikatahu yusalluna ala nabi daa dee ni e yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu mooy man ak samay malaaka damaa julli ci ku tedd mhm. kon yéen nag yéen e julli leen ci waaj kon boo xoolee secret bi sa neex ku ci julliwul xam julli ci yonent bi moo ko yor wala affaire bi mhm. ne yàlla wóorul mhm. yàlla joxewul azaka ajiwul màkka lan la def julli ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam akramal xalq mu am na ñaari teraanga yu mu defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te beneen ñi dootu ko am mhm. saa laaj ma lan la ban la allah subhanahu wa taala sunu borom dafa jël turam bu màgg bi di laa ilaha illa allah ka ak bu yonent bi muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaw da koo beral loxo beneen bi mhm. moom lañ la invité sa palais ba Moussa def ko ni woon dama la bëgg gis mu refusé mais fii dafay yee Jibril këpp këpp ni ko wool ma sama waaju maa ko invité dégg nga loolu. ba mu demee ñu joxoon ñu cinquante prière muy négocier ba ñu ba mu nekk cinq cinq wax. cinquante la ñu joxoon cinquante la ñu joxoon. juróom fukk la woon. lan waroon a julli mu koy plaider mu koy plaider di ka ba mu nekk cinq. mu naan objection ñu naan ko rejeté. wallaay ba mu matee cinq sax am na fu mu wàccaat kooku ne ka dellul xeet bi daa sàggan mu ne que nag rusati naa dellu. waaw cinq yi baax na nag. cinq yi nag ah, vraiment ah macha allah. waaye Sanex nee nañu nag booy nekk naafila kat di jóg guddi di naafila. si diggante waxtu yi aussi ngay door waaw da ngay am équivalent ak ku door cinquante et un. mbaa daa léeg-léeg ngay naafila yoor yoor waaw saa yoo jàppee nga dóor sa ñaari rakka naafilaay sa problème ah, a naafila <laughs> ak man nag saa neex defe naa cheikh mii dafay naafila parce que maa ngi ko xool si kana lii ah. te lii mooy fii meew fii wuju yi mena sari mooy siimeewum fi wujuhi mi nasari sujud ku du sujud balaa ñu ma xam damaa dee yéen balaa ngeen waaye defal nànk saa neex amu ko waaye loolu suma sa waaye loolu loo xam bàyyi loolu bàyyi loolu su koy dëpp boppam naan ni xam nga ne aw ma jot bi xam nga ne jot bi aw ma ko promotion promotion julli da di wut promotion xam nga aw ma jot bu ñëwal ñetteel ba nga ne ñetteel ba moo toj dëkk bi. boobu daal laa way kurima takriman wa karama oh, oh, takriman. waaw oh, ma jóge si dem kër Cheikhul Khadim jàng mooy bu naafew. moom sax laa jëkk way. mooy bu foofa jaar. wallaay noo waye mooy bu bi foofa jaar. sëñ Bamba nee na hamdan li rabbi xayral murabi qadral maqalami bila tidaay baayu masak baara nee na zita hadaaya quuta hadaaya mhm. li birridaaya duuna shtikaay yaa man ajaaba maani sajaaba habli ijaaba fi sannidaay Cheikhul Khadim nee na xubli na waala yummi kamaala mhm. yaa man taala an shurakaay suura lamini maxal amini mhm. faw kat lamini fii la si fiyaay mm. sëñ Bamba nee na naa la jalaala naa la jamaala lii man taala rabbu samaay yaa rasulallah yaa man ci góor ñi mhm. yaa raw ci góor ñi mhm. yaa gën ci góor ñi baari saxaar dëgg la baari saxaar mu ni sëñ Bamba nee la maa la jamaala naala jalaala naala jamaala lii man taana rabbu samaay lii mooy way nu ah, ñu tedd ñooñu waxoon naa ko fi boo leen di way da nga leen di way ci anam yii du ah, am yooyu ay dakkaseeki sàllal ñi ko na aa tout cas sànneex neexaay bi sax mënoo ko xam na de bi ma leen wuysee seen kër gi di ngoonal <laughs> maa ngi fi dajeel borom face to face waaw Bécaye nee na ma yaag sa groupe yëpp incha allah le 26 maa leen invité ngeen jóge Saint-Louis ñëw Bécaye seen ndogoog yëpp maa leen ko amee moom moo la ko wax boo bëggee dégg nag naa la jalaale bi nag ma fekk foofu ak sama xam nga fu ma lay yóbbu man waaw nee ma jàkk ma ne la jàkk nee naa jàkk saa ndeysaan su ma la dinaa ko fa yóbbu ndeysaan yóbbu la fa yow mii ndeysaan dama am sama xarit bu baax bu tudd Moustapha Ñang nekk ca Tilleen ndeysaan dina la takkali or maa ko wax ma jiit waay may dégg allahu akbar or yang fay takk maay jàpp ci sa loxo ba foofu mu takkal la ko Moustapha Ñang ndeysaan sama waaji ku ko waayo bu day waayi waaye koo waayo mu mat waay waaw waayam du ñee mukk waayu keneen rasulallah waaw léegi ma laaj la wallahi sallallahu alayhi wa sallam saa neex nee na nag àddina bi yëpp yëpp takkal na ma or ci man du ma la ko takkal Moustapha Niang bu tillee na takkal ndax dafa ne naa indi kii mu takkal koy or doo ko prévenir avant non non du ma ko kooku sama waay la bon sallallahu alayhi xam nga moom day tagg rasulullah set lool Mm-hmm. mën a sañse lool sellu lool ndax di nga dem ba nga xam ne jamono ñii ngente di ci booley tama ak ki sabara ki junjung di làng woola nga dem ca nga génn feneen fu fudul fii nga teewe loolu loolu moom saa neex waaw ah loolu moom ñemewu ma ko def ndax yonent bi mooy sama cër hmm. waaye nag dama lay wax ni la am na ay xaleel yoo xam ne classe d'âge yi ak ñu ko gën a ndaw dañuy woo seen yaay yi wax leen ni leen man de bu ñu may takk. waaw tata Fat Bintu moo may wayal yonent bi. sallallahu alayhi mm-hmm. waaw. loolu moom xale ba nekk macha allah comme li ngay wax du paccal du def dara. Mm-hmm. du woo sabar. du woo leen ñun lay déplacé yaayam tàntal mu. Mm-hmm. loolu moom je l'ai fait à maintes reprises même fii Dakar xam ne ñun dong fay anime xale ba jóge salon. ñu bàkkal ka ndënd yi yaayam toog ak moom ñu koy wayal yonent bi ndax nag am na ñu am diine ah. am na ñu am diine waa am na moom franchement am na xale yoo xam ne musique ñu sabaruñu ndax nag ñun saaneex lii dañ ko fonk lii mooy sunu métier léegi métier sax lañ ko def yàlla dañu si teral macha allah kon luñ ka demoon ba ñu ko sëppoo dañ koo gën a fonk waaw soxna waaw tey ji ku soxla woon groupe bi tey ji bu fekkoon damaa soxla groupe bi <laughs> am nga ménagère bu ñu mën a waxal wala yow yaay yow yow directement yow yi la ñuy ñëw traité ak prime yi ndax da teg ay barème ne lii lañ may fay ci lii wala ki ngay wayal ah. moom mooy ñëw ne kontaan naa kat mu yëkkati xaalis jox parce que Seydina Mohamed amul prix amul prix waa hmm. keñ nag gis nga loolu nga ma laaj ni mu amee solo hmm. ñun duñu fayeeku yonent bi te wuñ ko ah, doo fayeeku hmm. araam barke yonent non non non non du dama koy wax na gis nga yow seen kër ngoonal gii macha allah mm-hmm. te àddina ak may dégg man képp ku mu mën a woo loo may jëkk laaj sa en général looy fayeeku nga ne leen soo ma nee da ngay looy fayeeku ma ne la amuloo pireem mm-hmm. très bien ki la jàngal alquran mm-hmm. ak ki la taggal yonent bi mënuloo ko fay ndar nag la ñu dëkk boo ñuy déplacé ñuy jóge ndar ba ñëw daal oto ba ñuy dugg. transport ba transport yow daal yaa koy fay te bu la neexee sax nga luye oto envoyé ma. sinon nga laajte Dakar Saint-Louis ñaata la. nga jox ñu lool. suñ fa ñëwee nag way yonent bi luñ fa jëlee muy sunu wërsëg mais dunu ma suñu fay yokkin maa ngi nii nag. est-ce que mosul am. Mhm. téléphone nga ci ngoonam mën na la mës na la dal nga déplacé woo Saint-Louis dem. Mhm. Euh, bégal nit wala bégal ñin ña. Mhm. ñibbi ci loxoy kese te kooko joxu la dara. waaw parce que xam nga liggéey looy gis looy def rek dafay am des hauts et des bas. Mm. kama joxul du ma jox parce que amu ko. bëgg ko mm-hmm. mais mën nga woo nit ki. saa mm-hmm. neex innamal a'maalu binniyaati dafa am ñu am dërëm. Mm-hmm. am ñu am ñaar dërëm am ñu am ñetti dërëm. te ñun ki ñu gën a sawar a wayali mooy ki nga xamee ni dafa yaakaar ni ñun bu nu woowee sax duñu du duñu mën a déplacé. te dama lay wax benn anecdote bu ndaw. damaa dem Italie. bi ma jàngee Italie ñu ñuy xëccoo man ku may ku may dalal di may waxe ngi muy leer ndeysaan am na ndar-ndar bu sa nekk ñu ni ko yow yaay daloo Fabinta mhm. mu ni man soxna si ni mu màggee soxna si ni mu mel te dama soog a defar sama kër di aménager man daal man mënuma ko daloo wala boog li fi ma bëgg def pareegul ndeysaan te ñoo bokk dëkk ndar mu nekk nit ku baax may ànd ak petite sœuram te man mhm. xaw ma ko woon mhm. mais loolu après laa ko xam yàlla dogalee ma dem ba foofu man man taalibe laa saaneex man gëwuma leen lu dul nekk taalibe mm. Mm. soo duggee sama néeg ma lal ka ba mu baax man ci suuf laay tëdd def sama moket bu nooy mm. ndax si suuf lañ jëm yàlla na yeex maa la ko wax yàlla def ma dem fa tagg yonent bi waa groupe Cheikh na Cheikh Saad bu lu ne ñu may ma ka si teranga lu ne ñu defal ma ko ba ñu xëyee suba ku ne dem sa kër li may wax ngi ni télévision laay wax boroom kër ga toog ñu juug ndab yi jaaxle dugal fii raxas ma lenkali ma jàppale leen raxas ndab bi. ñu ni yow ñun dinañ la raxasloo. ma ni leen xanaa du ma jigéen nag. Mm. ma takku saa raxas ndab ya. waaw waaw nga togg. xatta. waaw dëgg xam nga lu ma bëgg. xatta xam nga lu ma bëgg. ma ma eggalee li ah, dafa neex de. dafa neex de. ba ma agsee ba ñu fekk ma may di raxas ndab ya ndeysaan ndaw sa defal ma moog jëkkëram teraanga bu ne may ma gestionnaire yi macha allah yu rafet yi ngay wax ba tey foofu la woon Mm. mais bu mu ñëwee dafa ma laxas mun ma xaw ma woon nii nga modeste ndeysaan mu ni kon doo dal si kër kenn sama kër ngay dal man tam man maa la war a daloo mais dama nekkoon di toxu te pareegu ma ma ni que man taalibe laa foo ma lalal ndi sax ma tëdd fa kon o passage maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak borom këram ndax ba ma ñëwee lu luñ ma defalul si teraanga man bu ma fekkee ñu lal lal buy jar un million cinq cent man lal sama ndës si suuf ndax nag saa neex nekk taalibi rek a wóor te yonent bi la ñuy woyan ah, sallallahu alayhi wa sallam ba tax nit ñi adoré ñu mhm. yàlla buñ si gis suñu bopp te bés buñ si gisee suñu bopp dañuy nekk hors sujet donc man si yooyu laay dox fayeeku ma sàmba bokk ma si que ça soit clair na ma bëgg mu léeg-léeg nag ñu dem nag fenn nag. waaw ñu teral ñu ba muy loolu. waaw waaw ah. ah. Adja Ndéla Wade maa am nga am nga ay millions. Adja Ndéla Wade maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara. non ah. <laughs> wax. waaw waaw bi may dóor sama ay clip caani jour ji moo ma yóbbu këram. am na benn député honorable Aïssatou Sabara. waaw député Sidiya waaw solal ma accessoire yi kon man saa neex namuma dara. waaw waaw ndax ku mel ne soxna Bintu Dieng ay dara ah? namuma donc oh. yii ngay gis ma koy takkee taxaw ma fenn jënd dan may dugal si 4x4 nooy gaari si marché naan ma yaay bañ taan mérite kii kenn du yeneen ci. sunu xarit bii moom it ndekete mën na bii boor man bee boor. Ah, ah. yaa ma laaj. ah wax ma. léegi ñaanal. léegi balaa loolu. dañuy ñaanal. waaw waaw après balaa loolu man damay dem damay dem. daa fu may dem waaw da ngay dem. mais daa damay gërëm. waaw ah Bécaye borom face gërëm waa Jadida mi nga xam ni. dañoo nekk en collaboration ak Soumboulou Bàcc li nekk en collaboration ak face to face ñuy def teraanga yi Jadida dëwlin. Jadida beurre. Jadida meew. ñooñu toj ñu dëkk bi ah. Jadida beurre dëwlin ak nga naan meew. mayonnaise laa wax damaa sa gaz mi ngi xeeñ de. non gaz bi moom day day wàcc. ah kii dootul ñëw ngoon nag. beneen gaz laa bëgg mu ñëw. xam nga lu ñu bëgg. nga tàggoog ñun. yeneen bi keroog ba mu jógee yonent bi keroog ba mu jógee Medina di dem Makka. bees bi laa la bëgg may yaa ma ko waxoon. a ñu ñaanal rek daf koy ñaan. waaye Alaaji Sané damaa ànd ak sama benn shérif bëggul feeñ si kër gi ngoonal. Mm. waaw ma nga fale toog surtout Cheikh na Cheikh Saad Bou la. nu mu tudd. Cheikh Ouna Aïdara doomu Cheikh Talib Bouye la. doo ko mu xuus ñëw nii. donc ma nga fee toog moom ñemewu ma ko woo. li lay liggéeyee bi sama xale yi di dem léegi dafa gaare macha allah ndeysaan jox ma lu ma jox daayira bi kon maa ngi koy nuyu au passage Aïdara Chérif di nuyu waa kër Ali ñu ne ñu koy nuyu di nuyu Alaaji Cheybane ma nga ci Amérique di nuyu Alaaji Cheikh Al Khalifa sama xarit sama sëriñ ma nga Europe moom tamit di nuyu waa kër yonent yàlla Muhammad parce que su su ma limee dafay day long waaw dama leen dëxëñ ziyaar ziyaar leen ziyaar sama papa bi ma jóge ziyaar nag sama yaay ak sama papa ñanga ak samay doom ak samay bàjjan tout le monde ak ndar ndar yëpp yëpp yéen nag di nuyu waa kër gi di ñaan yàlla saxal leen may leen wér yal ngeen dund ba mel na màggat ñoom bàyyi pël ak ñoom maxura jege ngeen am fan yu gudda eh, gudda gudd <laughs> ngeen am téeméeri at je dire ah, ah, ah, man rue de France laa dëkk Euh, man maa ngi dëkk sud. loo doon daan ah. waaw ca wetu hôpital ba ca tàkkal dex ga. kër maa liggéey périssac. diir waay man man loo da laa kër ngoti gay xam nga ko. bu baax a baax mooy sama bàjjan kii ah. sama mbokk la. yéen dëkku leen ndar vous n'êtes pas des des des grands monsieur. Ah. grand monsieur grand ñaanal ñu. maa tax nga civilisé bul way ñaan. ma ñaan bañ way moo tax nga civilisé wu civilisé woo <laughs> yaa ngi ñaq kuy ñaq civilisé wu allahumma salli ala sayidina muhammadin salatan tunjina biha min jamii lahwali wal afati وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها سرغايات min jami alxayrati fi lxayati wa bada almamati innaka ala kulli cheyin qadir allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim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 rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmuminina yawma yaqumu hisab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi alakhirati hasanatan wa qina azaba annar allahumma akhtini kalimatan la turaddu wa malan la yuaddu wa dukhuli jannata bighayri hisab wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ya salaam wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin addiya Seydina Muhammad bu ma la mënoon may usine jadida ci boppam dama la koy may kontaan naa yàlla bu mu nekk suñu mujjantalu daje mukku daañu daje fu ne man kii la mayoon ñaari junni naa may mille francs yi muy onze mille kontaan naa trop jazakallahu ana kontaan nañu merci nañ dem maale gu ma tey la saag bi cheikh ma tey la saag bi <laughs> cheikh bàyyi rek bëgguma la lépp bëgguma la sonal billaay nañ dem a gunge la <laughs> nañ dem a gunge kontaan nañu ah. waaw